أعوذ بالله من ميلي لغير رضا ومن سدودي عما سنة وفردا بسم الله الذي قرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده نزلا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نانgi nuyu mbokk julli yépp te di leen ziyaara di jiital ci nuyoo ba ziyaar bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal suñu borom sàmm ko te guddaloo fanam te may ku wér ba li mu yéene liggéeyal Cheikh na Ahmadul Xadim lépp mu mottale ko te ñu ànd ko ak moom di ko tamit ci weeru safar yi nga xam ne ci lañ dugg di ci képp koo xam ne mbégam sëriñ bi sa mbég la ci bisam bu màgg bi nga xam ne moom la woote woote woon ngir ñu santale ko ci yàlla boroomam eh, ci biir cant googu nag ak bis màgg boobu ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di bis bi mu fiy jóge dem ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sant yàlla di ci eh, tagg di ko ci tagg ak daan ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi koo xam ne mbégam sa mbég la bu bis bi agsee nga santale ko ci boroomam bis bu ñuy waajal nag tey jii di fukki fan ci weeru safar démb la juróom-ñeenteelu fanum ci lañ tàmbali woon jotaay yi nga xam ne daayira muqaddamatul xidma moo koy amal ngir ni ci jàngat njàngalem Seex na Ahmadul Xadim eh, di ko ci fàttaliku ngir nit ñi gën a xam de sëñ doon woote ak am njàngaleem ak lam doon yore mag ñi fukkeelu fan bii nag tey di ñaareelu jotaay ci jotaay yi nga xam ne moom la daayira Muqaddamatul Xidma tànn ngir di ci fàttalante ak julli ñi ak murid yi eh, njàngaleem Seexna Ahmadul Xadim tey jii ñu war a jàngat xasida yaasal bushaaraati bil ayaati wa suwari muy xasida goo xam ne eh, ñi yëngu ci xasida yi xam nañ ne bokk na ci xasida yi nga xam ne moom la Cheikhuna Ahmad al Xadim xaadalahullah maxtaara lahu bind ci géej bi mooy ci tukki bi euh, xasida googu nag di xasida goo xam ne gu làmboo ay mbir lay tomb yu bari ci biir xasida gi ak ni ko sëriñ bi taalifee muy xasida gu am solo xasida yépp am solo euh, jàngat gi nag tey ñu ci ànd ak suñu bokk sunu sëriñ euh, sëriñ Basiiru Ture yaakaar naa ñu bari xam nañ ko buñ gisee jëmm ji rek wala ñu dégg kàddu gi euh, muy war a waxtaan ci xasida yi du nekk lu lu yéeme ndax yàgg nañ koo xam ci waxtaanee xasida yi euh, ci ci mu yàgg jamono yàgg yàgg yàgg di ji koo xam ne ku ci xereñ la ji ku ciy def ay gëstu yu am solo la nit ñi di ko jariñoo jullit ñi ak taalibe yi xam naa ngir bañ a guddal danañu ñëwal ci xasida gi kañ la ko sëriñ bi taalif ak fan la ko taalifee ak lan moo waral mu taalif ko euh, dana ñëw tamit ci biir xasida gi bu ci duggee danañu leeral xam nañ ne xasida gi euh, ci koor la woon euh, dana wax kon sëriñ bi ak koor ni mu ko jàngate ci biir xasida gi ci biir xasida gi tamit sëriñ bi wax na ci lu tudd ci laaju ci tuub loolu tamit nee na dana ñëw ci leeral ko faram fàcce ko ak cant gi nga xam ne moom la sëriñ bi woote ci fan ak juróom-ñett bi nga xam ne moom la ñuy waajal cant googu nan la ko sëriñ bi jottalikoo ci biir xasida gi euh, ak xam nañ ne tamit ñaan ñaan tamit am ñëw na ci xasida gi dana ci sëriñ bi dana sëriñ Basiru Ture danañ ci ñëwal danañ ñëwal tamit tawxiid mooy wéetal yàlla gi nga xam ne sëriñ bi ci la nekkoon ci la doon wootee ci la doon moom la doon jàngale nan la ko sëriñ bi jottali ko ci biir xasida gi tam dina ci ñëw bu nappee loolu lépp tey dana ko dana ci wax ci wàllu luxa mooy làkku arab bi nga xam ne moom la ko sëriñ bi waaye ci wàllu badiya muhassanaat lafziya ak maanawiya mooy baat yi maanaa yi ñu amee ak rafet gi rafet ak sëriñ bi tànn gi ko tànn loolu dina ci ñëw leeral ko bu ko nag bu ko defee tamit mu door a tëj ab xaatima boo xam ne dana ci tëjee waxtaan wi eh, ñu koy ñaanal suñu borom defal ko ak ilmi fecc aw làmmiñam ba li mu yéenee leeral suñu borom defal defal ko ci jàpp jàppandal ba ñépp mën koo jëriñoo eh, suñu borom defal ñu ci tawfiix kon dañuy bàyyi kàddu gi ak sëriñ Bassirou Touré moom nag imaam la jàngalekat la eh, kuy faral di def ay waxtaan ay jotaay rawatina ci xaside yi kon ku ñuy présenté xam nañ ko fii muy sëtëb Cheikh Abdoul Ahad Mbacké euh, kon sëriñ bi bisimilah. bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi alladi allama bilqalam allama al insana ma lam yaalam wasalaatu wasalaamu ala man unsila alayhi iqrax bismi rabbika allazi xalaq xalaqa al insana min alaq iqrax wa rabbuka al akram maa ngi tàmbali samay kàddu ci turu sun borom di wax bismillahi arrahmani rahim di sant yàlla yàlla mi nga xamee ne moo xamle te jaare ko ci xalima xamal nit lu mu xamutoon waaye maa ngi julli di sëlmal ci ki nga xam ne ci moom la suñu borom wàcce jàngal ci sa turu borom mi nga xam ne moo bind moo bind doomu aadama ci lumbu deret jàngal sa borom may aji tedd ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu mbokk yëpp nuyoob islaam te mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa nu am mbégte nag tey teew fii ak waa daairatu muqaddamatul xidma nu fas yéenee waxtaane xasiida gu màgg di xasiida ak bu bushaaraati bil ayaati wa suwar mu bokk ci xasiida yi géej gi moom nag xasiida gi sëriñ bi mi ngi ko def ci bahrul basit sëñ bi tamit mi ko way ci tukkib géej gi bi mu nekkee ci géej gi ci la ko sëñ bi way sëñ bi mi ko way ci atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak juróom sëñ bi tamit mi ngi ko wayoon ngir tàggatoo ak weeru koor nga xam ne bisub talaata la woon kon xasida gi nag mooy mbokkum xaroo xasida yaa xayra dayfin ata bil bisri ndax yaa xayra dayfin sëñ bi da bisub altine ñu ne taafeer tey la benn fan ci weeru koor bisub talaata weer wi feeñ di korite sëriñ bi defar yaatal bu saaraat ngir tàggatoo ko ak weer wi kon bi sëriñ bi demee ci géej gi ci atum jay sasin ñetteelu koor ga ko fekk ci la sëriñ bi defar xasiida gi ngir di ci tàggatoo ak weer wu barkeel wii di ci deyaale ak boroomam di reconnaître nekk gi mu nekk jaamu bi yàlla di tuubal yàlla tuub gu sell la xam ngeen ne nag xasiday géej yi dafa am lu ñu ràññikoo dafa am lu ñu leen xàmmee dafa am dañoo am seen madd mënu bopp xam nga alxaybatul bahriya moom mooy samaaniya xijajin ila qalila waaye bu dee alxasaidul bahriya moom sëñ bi bu koy taxbir ci xasrata awaab atratu awaam lay wax tàmbalee ko ci jay sa sin ba ci mujjantaluk bat sa sin fukki at yooyu la sëñ bi wax ne mooy xasiida yi géej gi ñoom nag seen mat mun sëñ bi moo ko waxal boppam sëñ bi nee na mbooleem ñi aju ci man nañu xam ne man sëñ Tuubaa jubale naa jublu naa ci yàlla ci ay taalif yoo xam ne def naa ci njariñal gulit ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi àddina ak alaxira te mbooleem li ma bind ci géej gi liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ak tudd yàlla ak sant yàlla ak jihaad kon xasiida goo gis rek tudd yàlla sant yàlla jihaad liggéeyal yonent bi ci di ko tagg ci julli ci moom moo gis nga moo tax nga gis xasiiday géej gi ci bari di xasiiday di kar diwaanu fulk yi ci nekk yépp xasiiday di kar la bu dee sukkuru gi nekk nag ci xasiiday géej gi dafa wuutee ak sukkuru gi nekk ci xasiiday ginnaaw géej gi bu dee xasiiday géej gi xasiida yi ci gis yépp muy xasiiday cant mooy ak cantu ak sukuru ala ma yusbiru alayhi yàlla teg la nattu nga muñ nattu ga muñ gu rafet gërëm yàlla ba noppi nag ànd nag ànd di sant nag ci nattu bi moo tax nga gis ci biir xasiiday géej gi sëñ bi naan sintul xasaida lil wahaabi askuruhu biha wali xaada ma faaxa kulla masnooni moo tax nga gis mu naan sintul xasaida fiikum shakira bihaa lakum waajiho lil kasfa wal aaya moo tax mu ne atnaba naasib fi shukrillahi taala bi xidmati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama bi xasaidihi lbahriyat moo tax xasiiday géej gi yi ciy xasiiday cant asiroog rum naag ala ina néeg ñoom ñëpp ak ba ci yaatal bu saaraat mooy cantuk asukru ala ma yusbiru alayhi kon xasiiday géej gi moom itam xasiiday jihaad la sëñ boo xam ne ko jaaxattu fi lbahri lazina sallasoo wa man tasaddaqoo wa man tasalsaloo wax na ko sintul xasaida awaman mujaahada liman bihi bixtu kax mastuura wax na ko am na xasiid ak laysul birru sëñ bi mu naan haadihi xasidatun biha jaadaltu ahlal kitaab wa biha xaataltu kon xasiday géej gi jihaab la làmboo waaye tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak julli ci yonent bi daa bokk ci mat moonu xasaaidil bahriya kon moom itam yu bare bare li ci sëñ bi def tey it xasiida yi géej gi goo xool loola man ca tàgg yonent bi julli ci moom delloo yàlla njukkal waaye ba tey bokk na ci xasiiday géej gi man moom bi muy xasiiday yooyu tawxiid la wéetal sunu borom la te loolu danañ ci ñëw nga xam ne yooyu yëpp sëriñ bi da koo màndaxee da koo defaree ci secret qul huwallahu ahad li wax sintu bi sirri qul huwa allahu ahad xasaida tawhidi inda man jaat kon xasida yaatal busaaraat yi ci xasida yi géej yooyu la wax moo tax yooyu ci ne te mooy mat moomu xasaydu bahriya moo nekk ci biir xasida yaatal busaaraat yi sant yàlla delloo yàlla njukkal tudd yàlla wéetal yàlla jihaad xasida gi nag am na bis sëriñ bi génn dajeek nit ñi am kum woo koo xam daa baaxa woon daa aada woon di jàng xasida bu sëñ bi génnee ñu di ko wax Mahmoud Fall sëriñ bi diggal ko mu jàng xasida ak yaa xayra dayfin ba mu ko jàngee ba àggal sëñ bi ne ko jàngal mbokkum xarom ma kon sëñ bi moo wax ne yaa xayra dayfin ak yaasal bu saarat ñoom ñaar ay saqiqa lañ mu jàng ko ba àggal bi mu àggalee sëñ bi ne ko innahuma min al bahriyaat ñaari xaside yi ñu ngi bokk ci xaside yi géej gi daan ne bu njëkk ba maa ko wax biñ ne taafeer weeru koor feeñ na muy yaaxeer dafin bu ñaareel bi maa ko wax bi nga xamee ne weeru koor wi jeex na sëñ bi ne ko nag waaye diggante fi may woyee yaa xayra dayfin ñu ne taafeer weeru koor ak su may wayee yaa dal bu saaraat diggante ñaari yaay yooyu muy weeru koor bu mat sëkk woo xam ne ñaar fukki fan la ak juróom-ñeent sëñ bi nee na gisoo fi sama bët luñ togg ci diir diir boobu nga xam ne sëñ bi weeru koor wu métti la weer woowu mu ne nag wa haza say un xalil mi ma tadamantu al bahriyaat lii nag lu néew la ci xasida yi géej gi bu nu demee ci minul baaxul xadim bu cheikh mahamadul bachir radiallahu anhu nee na cheikhul xadim radiallahu anhu weeru ko da koo fekk ci maa yomba ci jazira bu lëndëm boobu mu nekk ci loxoy ay noonam yorul dara lu dul ay téere tumuranke lool ñàkk lool weeru olof yi sax du ko xam lu dul euh, doon sukkandiku ci di ko bind ndax foofa lislaam dafa tumuranke lool nee na weeru koor wu ñëw nag sëñ bi yorul dara lu dul payoor bañ koy jox tubaab yi te sëñ bi lu njëkk loola moom diiru ba mu xeloo rek buur yi seen alal yeeg seen yëpp daawu ci jariñu rawatina kon loolu di jóge ci tubaab bi dafoo defoon ngir ak sàmm sëñ bi weer wooru weer ba weer wi jeex bu dog jotee ndox rek lu sëñ bi di doge walla mu jël xobu garab mujj ko ndox moomu jàll ngir la ngir jëfe sunnas yonante bi sallallahu alayhi wa ci diggante boobu ci circonstance yooyu ci weeru kooru tar woowu ci la sëñ bi di bëggee ci weeru koor ñëw gim ñëw ba di ko mel ne ko yaay gën gi gan gan goo xam da dikk indaale mbégte ak melat di ko ñaanal mu agsi ak jàmm di tagg weer wi ne ko yow weer wu màgg nga ci sunu borom wu màgg nga ci borom xam-xam yi ak ñu jub waaye bi weeru koor bi jeexee nag la sëriñ bi radiyallahu taala anhu di tàggatoog weer wi ci xasiid ak yaadal busaaraat yi bil ayaati wa suuri nga xam ne mi ngi ñaan walla mu ngi wax sunu borom seeral ko ne moom wala weeru koor wi seeral ko ne moom jaabu yàlla la bu amul xis ngir mu seeral ko ak tuubam mi ngi naan ko doxal jëm ci sunu borom bi nga xam ne amul bokkaale ci al ci nguuram ak cant mooy borom nit ñi mooy borom jinni mi naan ko yow weeru koor mosoo dañ di gan gu tedd gan gu may bégal ci lu feeñ ak ci lu nëbb Cheikh Mouhamadul Basir nee na ci ñaari xasidi yii danañ ci xamee sëñ bi ak dëggoom ci yàlla ak bëggam gu dëggu ci sun borom ak cofeelam ak sukkandikoom ci yàlla ak ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye danañ ci xamee tamit moom itam munaajaat yi mu doon def ak boroomam ak di sàkku nag ci weer wii mu seddal ko ne moom jaamub yàlla la ak di tuub di dellu ci yàlla di ñaan yàlla di def istixaar ci moom di wane ak ñàkkam ci kanamu boroomam di wane ak toroxlu di wane ak wéeroom ci sun boroom ak yaakaar ko ak léppam jublu yàlla ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa lu dul loolu nag tuuti ci bëtam kon xasida gi mu ngi noonu loolu moo ko tax jug bu ñu demee ci tarjumaan ji da nga fekk sëñ bi naan allahuma inna habibi wa xalili wa tabibi sahr ramadan araada al insiraaf anni yowma sulasaay ilayka maha anni lam amil minhu walam astaxni mu ne ko yow yàlla sama xarit bii sama soppe bii sama docteur bii di weeru koor moom de dafa bëgg a wëlbatiku bisub talaata man de yokkatuma yokkatuma ci moom doylu ma ci moom waaye maa ngi koy tàggatoo ci raaya bii muy xasida ak bu musaaraati maa ngi yaakaar nag tàggatoo gi may tàggat moom ci xasida ak bu musaaraati gii mu nekk yërmaande nekk sama nekk sama tonu addina ak alaxira kon yàlla nang ma ko nangul yow sax borom nang ma barkeeral ci xasida gii di yaatal musaaraati nang ko def lu kawe di ma ko waxee te na nga dëggal lépp lu ma yaakaar ci yow addina ak alaxira yow yàlla na nga ma seedeel ne gërëm naa la gërëm naa sa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngërëmul muhajirin ak ansaar radiyallahu taala anhum kon weeru kor woowu ñaar fukki fan la ak juróom-ñeent ndax sëñ ba nga ko tàmbalee altine jeexale ko talaata xasiida gi nag mat moom bi mooy feeñal ak wane diggam ak weeru koor waaye wéetal yàlla fés na ci feeñ ci lool dellu ci yàlla delloo yàlla njukkal ñaan tagg yonent bi julli ci moom yooyu yëpp feeñ feeñ ci ak feeñal ak ubuuriyatoom feeñal nekk mu nekk di jaamu yàlla di liggéey yaa kono yonent bi waaye sëñ bi indi ci diggam ak alxuraan bu dee diggam ak weeru koor yaasal bushaaraati wa suwari li yazhad bi kaw nii abdal muhsin suwari bi kaw nii abdallahi fiika bila qisin wa lishad bi anni tubtu min xawari ma naan ko wéyal dem ci suñu borom mi amul bokkaale yow kat doo dañu di gan gu tedd gu may bigal ci lu feeñ ak ci lu nëbbu xarit bettee nga ma fii ci mbégte kon xasidi gi mu ngi noonu bu ñu demee ca mujjantalu xasidi gi dañ fa fekk mu naan wàcc xal xalile saara saw bi yasadu lii bi kaw ni al abda lil wahabi dil qadar def sama xarit bii di weeru koor wii mu di ma seereel waxtu wu ne jamono ju ne ci nekk gi ma nekk jaamu yàlla mi mayaakoon bi yàlla mi borom dogal bi yashhadu lii la def fi'lul mudaari ad dallatu ala dawaami wal istimraar kon gis nga mi ngi noonu kon feeñal na ci diggam ak weeru koor gis nga wax gi mu wax de allahumma inna habibi wa xalili te loolu boo demee ci tarjumaanu yaa xer rayfin indi woon na fa ñaar yooyu yow weeru koor sama sopp sama xarit waaye bi mu dee ba woor weeru koor ba weeru koor wi am lu mu def ci ñu moom ci njariñ yoo xam ni bu weesoo tuyaab gi wér-géeg yooyu moo tax mu ne ko wa tabib yi yokk ci baatu tabib bi nga xam ne mooy doctoram bu dee tawhid ji nag mi ngi melal borom ne moom mooy al muhsinu suwar mi ngi melal boroomam ne boroomam mooy ki nga xam ne amul mbokkaale fil hamdi fil mulki wal hamdi mooy boroom nit ñi ak ginne yi baatub rab bu jëw na ci lu bari di wane ne suñ boroom moom moom mbindeef yépp mooy soppax ni ko ci ñoom di wane ne suñ boroom mooy alkarim mooy badi xusunu zil qadar fa xultu walqalbu tayibun minni walqalbu bi nii tayibun biridan anil karim il badixi sunnitil qadar nga xam ne alkarim mooy ki bari aw yiw lool njëriñam màgg lool alkarim mooy ki nga xam ne lépp moo ci gën a rafet moo ci gën suñ borom nag moomelal boo xam ne moom mooy alkarim yaa ayuha al insaanu maa garraka bi rabbika alkarim wa man kafara fa inna rabbi xaniyun karim kon mi ngi melal suñ boroom ci loolu ne suñ boroom mooy ki bari aw yiw bari ay may yiw yëpp ci loxoom la nekk moom mooy ki deppatoo yiw mooy ki nga xam ni sun boroom dafa set ci mboolem wàññi wàññant yëpp ak gàkk-gàkk yëpp indi ci tur wi di albadix badixu suni mooy ki nga xam ni amul kem amul kuñ koy nuróoleel ci jëmm du ci melo du ci ay jëfam moo bind lépp te amul fum mu sukkandikoo wala fu mu ko royee bind ko mooy càppaaculi bi nga xam ne kenn bokkaaliwut ak moom ci dara mooy borom dogal bi te nit ki dafa war a gëm ne moom suñu borom rek moo koy def lu dul suñu borom amoo jeexital ci dara lépp lu am rek ci xam-xamu suñu borom la amee ak nameelam ak kattanam waaye mi ngi melal boromam ci xas digi ne mooy alxaafir mooy xafaar qad tubtu lil xaafiril xafaari min awadi mooy melal boromam ne mooy jéggale bakkaar yi mooy ki yaatu ak njéggal mooy suturaal ayib mooy jéggal ci ngëneelam ak ci yërmandeem alxaafir mooy ki suturaal aji bakkaar ji kon mooy ki nga xamee ne nit day def bàkkaar mu suturaal ko bañ koo gàccaal xafaar mooy ki nga xam ne limi muy suturaal way bàkkaar yi way yi dafa bari kon alxafaar dafa ñëw ci ala was di faal mooy kasirul maxfarati kam man wa nawaan melal boroom ne mooy alwahaab ilayka yaa xayra wahaabin madattu yaddi fil barri wal baxri saxir li dawil asari ku bari xéwal la bari maye wahaab faal la faal nag ci làkku arab lil mubaalaxa la yàlla mooy may lu ko ko soob ci jaamam yi ci ngëneelam yu màgg yi mooy leen di muur ci ay xéwalam ci ay mayam kon mayaa kon la xasaayinu yëpp ci loxoom la ne malakut sama i wal ard ci loxoom la nekk mooy may ku ko soob lu ko soob te ay mayam mi ngi toftaloo ci jaamam yi tadu jeex mu si turu yàlla wi di alwaasix mooy waasixu sifaat wa nuut kooku mooy waasixul fadli wal ihsaan mooy borom tabga kon yëpp ci wéetal sunu borom la ko indee waaye mu indi si tur wi di almughni nga xam ne mooy womal ko ci jàmmam yi moom rekk moo doyloo boppam walif leneen te lu dul moom aajo woo nga jëm ci moom mooy womal jaamam yi moo leen di jox xéewal moo leen yombalal seen wir woomal gi muy womal jaamam yi nag ñaari xaaj la benn bi mooy bi muy defal al awaam te loolu xënan majaas yi la lim leen jox ci alal jox leen ko ci ay xéewalu zahir nii mu mel ni mooy noonam yooyu waaye am na xinaan gum jox alxawaas te loolu mooy alxinaan xaqiqi yi nga xam ne googu la sëñ bi yoroon wéeru ci boromam sukkandikoo ci boromam doyloo boroomam ba soxlaalul noonam yooyu ci lenn ci dara képp ko xam ne yàlla mooy alxani mooy muxni da nga wëkkirlu ci yàlla wéeru ci moom danga nga dellu ci yàlla ci lépp ci bépp mbir sëñ bi nag bi muy def yaatal bu sarat ji ci foofa la nekkoon mu indi ci ne wa ar lillah lahu xitaab yi wa arjo fawqa matlabay fawqa matlabati min joodihi naafixi l mustahjil al matari gis nga naafix gi mu ci indi nga xam ne lépp luy jariñ lépp luy yiw addina ak alaxira ci moom la jugee bunt yiw yëpp ak buntu wërsëg yépp moom suñ borom moo ko yore te moo koy ubbil jaamam yi mu indi ci turu yàlla wi di al nga xam ne rot na ci sunna moom tur woowu nga xam ne day dellu ci ilal fadli wal inham wal jóori ngëneelu suñu borom yi ak xéwalam yi ak tawam gi ak taraangaam yi ak mayam yi ci loolu lay dellu mu indi ci tur yàlla wi di ar rasaax inni ilan naafihi rasaax muftaxirun walam akun li si wal muxni bi muftaxirin nga xam ne moo féetewoo wërsëgale jaamam yi wa ma min dabbatin fi l ardi ila ala llahi risqaha wallahu yarsuqu man yashaa bi xayri hisaab ak yeneen tur al afis ñëw na ci ak yeneen tur kon xasida yaatal musaaraat yi dafa fees dell ak wéetal suñ borom te sëñ bi nag wax naa ko sànq ci biir géej gi da cee def xeetu tawxiid yu am solo xeetu tawxiid yu tumuranke xeetu tawxiid yu yéeme te tawxiid yi sëñ bi def ci biir géej gi mi ngi koy jëlee ci sekkare qul huwa allahu ahad sintu bi sirri qul huwa allahu ahad xasaida tawxidi inda man inda man jahad man de xanaa ci secret qul huwa allahu ahad ay xasiida yu wéetal yàlla yu ma nekkee ci ñi nga xam ne dañuy diigat lillahi xad awzaltu inda almusbiri tawxiduhu almuxsi man lam yaxmuda wasaltu tawxidi radal buhuuri li muusilin li sadaqaatul huuri sun boroom sëñ bi sax wax na ne noon yi nasraan yi maa ngi leen gañee ci xul huwa allaahu ahad nafayta ani nasaara yaa ahad fanhazamu bi xul huwa allaahu ahad nee na sax ci xul huwa allaahu ahad laa rendee noon yi ci jaasi wala goboru wétal yàlla dabaxtuhum bi xul huwa allaahu ahad fii xanjari tawxiid yi abdan lil ahad ci xul wala ahad la sëñ Tuubaa doon xeexeeg yéefar yi ufin li xawmin sallatu allah al ahad xaataltuhum bi qul huwa allahu ahad sëñ bi nag ci géej gi defar na ci ñetti xeetu tawxid sintu lahu xasaaid tawxidi inda sawil kufuuri wal juhud man na xel naa sun borom xasiiday wéetal yàlla ba ma nekk ci ñiy wedd yàlla tey dingat bu njëkk ba mooy xaqiqatu tawxid ñaareel bi mooy arfaxu tawxid ñetteel bi mooy afdalu tawxid te sëñ bi moo ko wax lillahi quttu xablu inda al musrikin xaqiqatu tawxid fihi da sakin mhm. lillahi quttu lhamda wa shukra maa xaqiqatu tawxid yi nga xam ne tawxid jooju tawxid mboolem gaa yu baax yëpp la ak mboolem saggu yu baax yëpp moo tax mu ne illahi xat xat awsaltu tawxida jamii ibaadi al xurri wa innahu samih lillahi xat wajaxtu tawxida rusuli alayhim aska salaama yi may yox jilo moo tax nee na la doxoon sama digganteeg bokkaale yàlla ak yàqu mooy wéetal suñu borom tursi yi anil israaki wal fasaadi tawxid rabbi taaril xasut arfaxu tawxid nag mooy maanaam jànqi wéetal yàlla yi nga xamee ne moom la jëmale ci suñ borom safaftu lillahi abkaaran muqallada wala yaraha siwa xayril wara xayril xayril wara abada mooy jànqi tawxid yi yi sëñ bi naan lillahi xuttu arfaxa tawxid raafixa xidmatin ilal waxid lillahi xuttu arfaxa tawxid hinda sawi taslisi wal juhud tawit yi gën a kawe jox naa ko suñu borom képp rek dong bi ma nekk ci ñuy wax ne yàlla jetta la tey di ngat yooyu nag mooy ab kaara tawhid yi sëñ bi di wax sintu lahu ab kaara tawhid yi nafat li xayril hida wa kulliya shafat ab kaara tawhid yi indal musbidi na fay ne kulla musrikin lam yahmudi tawhid boobu di je di jànqi tawhid sëñ bi mi ko defar booba ba muy nekk ci géej gi nekk ci tubaab yi ci arfaxu tawhid nag teelu yàlla gi ak màggal gi ak fuglu yàlla gi ak musahada gi muy def loolu moo jur ci moom xaal ak maqaama ak mbànneex moo tax muy sos ab kaari tawhid googu ci boroomam allahu akbar mu ñëw nag ci euh, ba ca mujj te mooy afdalu sëñ bi def ko ci biir géej gi moom leneen la diggam ak boroomam la loo xam ne kenn ci teg du feeñ ci kenn lu dul ci moom sunu boroom moo tax xasiida gi di yaasal bu saaraat yi moom itam fees dell ak wéetal sunu boroom te xam ngeen ne sëñ bi tawxiid gi mu def ci xasiiday géej gi bim ñibbisee bokkut ak tawxiid gi mu def ci xasiiday ginnaaw géej gi feebam arfaxu tawxiid xaqiqatu tawxiid afdalu tawxiid waaye bim ñibbisee nag xasiida yi ginnaaw géej gi mat moomu tawxiid ba ma mooy tawxiid bi mu doon jàngale lu njëkk muy dem ci géej gi te jàngale ko ci sawul sixaar jàngale ko ci sawul subaan jàngale ko ci mawaahibul xudóos muy euh, tawxiid boobu nga xam ne moom moom la xam ci téere yi ñu di ko jàngale loolu la def ci xasiida yi ginnaaw géej gi kon xasiida ak yaasal bu saaraati xasiida gu fees jàllal la ak tawxiid ñu ngi naan sir saaqu fóole li rabbin laa sharika lahu yow yaa ngi tàggatoo di dem demal ci sunu borom mi nga xam ne amul mbokkaale amul ndenn amul kuñ koy gamle du ci nguuram du ci cant sunu borom moom nga xam ne moom moom jinne moo moom nit ma nga naan ko yaasa samaawaati wal ardi munfarida maa la hawaayi wa yaasal bahri wan nahari yow sunu borom yaay borom asamaan yi ak suuf si yaay càppaay colu bi yaa moom ngelaw li yaa moom géej gi yaa moom dex allahu akbar nga xam ne euh, da ciy wéetal yàlla da ciy feeñal tawxiid ci ne yàlla kenn la ci jëmmam yàlla kenn la ci jëmmam amul kuñ koy nuróoleel kenn la ci ay meloom kenn la ci jëfam amul kuñ koy bokkaaleel di wane ci biir xasidi gi doyloo gi suñ borom doyloo wuli lu dul moom ak lu dul suñ borom num ku dul suñ borom rek aajoo nga suñ borom moom nag aajowoo googu muy aajowoo boromam mu di ko feejal ci biir xasida gi ginnaaw bi mu xamee ne suñ borom rek moo doyloo boppam wulif lu dul moom nga xam ne da ciy indi tawhid ju am solo te mooy at tawhidu shar'i te mooy wane sag njaabu wane na yàlla képp rek moom ngay jaamu doo jaamu lu dul moom waaye ànd ak fas ne yàlla kenn la ci jëmam yàlla kenn la ci meloom yàlla kenn la ci yàlla amul ndend amul bokkaale ci lu feeñ ak ci tawhid jooju mooy max naa laa ilaha illa allah ndax ba nga nee laa nga dàq geneen yàlla gudul yàlla nga dàq alhuyatu an waaye saxal ko nag moom tawhid ji waaye wane ne tawhid yooyu nag fa muy mooy ci di ko jaam moom képp rek dongo di wane ak uburitom kon baatub al ilah ak allah bari ci xasida gi te mooy al mahmudu bi xaq mooy ki ñuy jaamu ci jaamu gi doon dëgg ñàkk ngaa jaamu di lor kon xasida gi dafa fees dell ak tawhid nee na inal ilah waliyi sarmadan wa bihi anjo wa in inni min xawfi idaaya bari baatub allah te mooy lafsul jalaala rot na ci xasida gi juróom-ñeenti yoon baatub yaa ilahi ñëw na ci ñetti yoon مكنتني في ديوري يا إلهي بلا كد ولي كنت في توبة بلا درر قد كنت لي في ديوري يا إلهي معا عصمتني من عجل الأسمان والقرر أخرجتني يا إلهي من عدايا معا بأهل بدر أر لي كل ذي بتر kon gis nga yooyu yëpp ci baatu isbu saati googu di wane uluhiyatul laa te mooy sun boroom doyloo gim doyloo boppam wëlif leneen lu dul moom sëriñ bi ci biir xasida yaasal bu saaraat yi mi ngi saxal uluhitullahi googu waaye di reconnaître ubuditoom di wane aajowoo gim aajowoo jëm ci boromam loolu sëñ bi dafa feeñal ci biir xasida gi fu baree bare mënees na cee tudd rek bayit yii mu wax di wane wane woo aajowoo gim aajowoo boromam mi ngi naan ilayka yaa xayra wahaabin madattu yaddi fil bari wal bahri sawi saxir li sawil asadi yow yàlla yow mi gën gi ma yaakoon talal naa sama loxo ci jéeri ji ak ci géej gi waaw man sax naka laay tàllalee sama loxo ci mbindéef te maa ngi ci noon yi nga xam ne xolub kenn ku nekk ñoom moo gën a wow xeer man sax naka laay tàllalee sama loxo kenn ku yàlla ginnaaw ba ma doonee Abdullahi ginnaaw ba ma nekkee xadimu nabi yi waaw man naka laay jéngee sax jëm ci àddina jinaa bi ma jaayee àddina ci fil usri wal yusri bu neexee ak bu bu yombee waaw man sax naka laay jàmbatee jëme ci ñi nga xam ne ñoom poñetum àddina ni ak taaru àddina moo leen nax ñi nga xam ne ñoom dañuy xëccoo dañuy wax ne yàlla ñett la moo tax inni ilan naa fi rasaaq muftaxirun man daal dama aajowoo jëm ci yàlla mi aji jariñe di wut sa gare moom képp rek dong laa aajowoo jëm ci moom kurul moom awma ci yow soxla walam akun li si al muqni bi muftaxiri kon mi ngi wane uluhitullahi gi waaye mi ngi wane abutam ci wane ne moom boromam rek képp la aajowoo jëm ci moom la astaki dura lil maxluqi mutadiyan min bahri kawni abdullahi bil fiqare du ma jàmbatal mi deex lor ginnaaw ba ma nekkee abdullahi kon gis nga mi ngi ci wane tawxid googu ci biir xasiida gi kon mi ngi ci wane ni mi ngi tuub wasat bi anni tubtu min xawarin mi ngi ci waree ubudité boobu ne aslamtu kulli lahu abdan lahu abada sama lépp jébbal naa ko yàlla di ab jaamam bi maa li ixtaara fii muksi wa fi safari kon tawxid jooju moom la feesee del la nee na inni li mawlaaya abidun xaadimun abada kon man inni li mawlaaya abdun xasru la man jaamu yàlla képp rekk dongo laa tey liggéeyaa ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam inni la abduka fi sirin wa fi alani yaa man amaani fii badin fi hadri gis nga bi mu indee uluhiyatullahi gi reconnaître ko xam ne yàlla mooy yàlla moo mooy ki nga xam ne aajuwul jëm ci keneen ku dul moom te ku dul moom aaju nga jëm ci moom mooy kii war a jaamu léegi nag mu wane ak lompañam ak aajoom jëm ci boromam waaye mi ngi wane xuburitam moo tax mun inni la abduka ci lu wér ci lu wóor mooy man sa jaam laa man sëñ Tuubaa fii sirrin ci lu fe ci lu nëbb wa fii alanin ak ci lu fës mhm. ndeysaan inni faqirun xaqirun li amalun arjo bi l fawsa min sawmin wa yàlla ma ne ku aaju walaa jëm la man daal aw ba benn yaakaar aw ba benn jëf ju ma yaakaar kon xasiida gi xasiida ak tawxiid la tawxiidul uluhiya tawxiidul rububiya loolu yëpp feeñ na ci tudd na ci baatu rabb lu jege juróom ñaari yoon mhm. léeg-léeg sax nga gis bay indi ci ñaari yoon rabb yaa rabbi bil Mustafa suxali munaaya mahan yaa man kafaani dawal idkaari wasaari inchaa rabbi alladi xad kaana li wa mahi rabban wa kuntu lahu abdan mahaddurar mahaddurar mooy li ma doon wax léegi wane kenn gu yàlla gi waaye wane mbuuritam ak njaaboom ndéem soob na sama borom mi nga xam ne nekkal na ma te ànd ak man man nag ma nekk ak moom doon abdan bi durar kon xas gi de yaasal bu saaraat yi xasiida gu fees dell ak tawxiid la sëñ Tuubaa dunum gépp da koo jeexal ci tawxiid moom li mu wane ne mooy jaamu bi la tey liggéeyaa ko yonent bi li yàlla moom lépp mu jox ko di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa waaye musta jaawale yonent bi ak boroomam ku ci ne la yàlla ci yow mu jox la ko nee na damaa dem suñ borom suñ borom tegtal ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom wéet ak borom ba sama borom ne ma xanaa da ngaa fàtte ne am na ko la boole lool ma dem ci yonent bi ne ci boobu ne ci boobu ba yonent bi ne xanaa da ngaa fàtte ne am na ko boole yow nee na ma def nag mbir bi léegi muy baagante diggante yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama kon sëñ Tuubaa tawhid ju sell ju wér wétal yàlla jox yàlla la moom nangu ak ubóoritoom ci la jeexal ak dundam kon nag lépp luy xeetoog surtout ak bokkaale sëñ Tuubaa moom kaccat ko ci ku ko defit yaa ko defal sa bopp waaye moom wax na ko jëf ko mu gis bind ko mu leer mu bàyyi ko fi defar ay xasir yoo xam ni xasiri tawhid la bind ay tiir yoo xam ne tawhid képp rek dong moo ko taxa a kon waaye ci biir xasida yaatal busaaraat yi sëñ bi nag ñëw na ci diggam ak alxuraan lies tajib bi ma faaqa zunoona bihi xalbi sarfil aaye was was lahoo sukkooriya fii daari salaami wa fii Touba bi dikrin xakimin xad na faa darar yi waxuttalii bin ka man xaarat lahu sulaha waxuttalii laka bin Touba maxa suwari ma nga ñaan yàlla habli tilaawataha nang ma may may jàng alquran ursuqni alaawataha nang ma may bànneexub cafkak jàng alquran warsuqni lkasfa fiha na nga may kastu ci alquran waltusil xawar yi kon nang ma may sax ak doylu ma doyloo ko wulif lu moom nga xam ne léegi-léegi mu mu taxbir alquran bil ayaati léeg-léeg mu taxbir ko ci biir xasit bi dikril hakim léeg-léeg mu taxbir ko bil wal aay loolu yëpp wane diggam ak alquran bu dee ñaan gi ci biir xasida gi xasida gi dafa fees dell ak ñaan ndax dafa bokk ci al ubudiyatu ñaan ginnaaw bi nga xamee ne yàlla mooy alkarim mooy naafi mooy rasaax tur yëpp indi na ko ci mooy al muhsin moom moo aajowul ku dul moom te ku moom aajowoo nga jëm ci moom kon nga aajowoo jëm ci moom yëkkat sa aajo di ko jëmal ci moom sëñ bi indi ci duxaaw talab ak duxaawul ibaada ñaan yàlla ci gëm yàlla bokk ci tawhid la bokk ci wital yàlla nga bokk ndax xam nga ne yàlla bi ngay ñaan ku am kattan la ku tabe la ku baax la moo tax saaltu baada awdi birda lahuma an laa yal an laa yulaqini sayan min alxarari wa an yusallimani min kulli mahlakatin bil mustafa man bi matihi wasalaati xari bihi talabtu min alqahaari mursalihi an raadali kula si jahrin wasi dajare yëpp ñaan la bu muy def mhm. mi ngi naan yaa rabbi bil Moustapha suxali mun naa yamahan yàlla maa ngi lay ñaan ci barkeb ci nga tànn na nga ma màngal mboolem xéwal yëpp yow mi nga xam ne yaa amoon fegal zawil inkaari wa saxari kon xas ji da ko fees dell la ak ñaan gàttaayu waxtu moo tax ñu di ko taxaj noonu waaye bi mu nee wa an yusallimani min kulli mahlakatin bil Mustafa man bi matti wasalaati xar yi samay tagg daal ak samay julli yonte bi moo ko yeyoo ñu gis nag mu tagg yonte bi ci biir xasida gi tagg yu am solo wa huwa alxabibu allati turja shafaatuhu li kulli hawlin min al ahwaali wa huwa alhabibu lladi turja safaatuhu bihi tawasaltu fii laylin wa fii saharin yonent bi daal mooy soppeeb suñ borom bi nga xam ne moom lañ yaakaaram moom lañ yaakaar ak raboom ci moom laay defee tawassul ci sama borom ci guddi yi ak ci fajar yi loolu danañ ci ñëw ci bayit yooyu sëñ bi indi te am lu mu ci def tam tam rafet lool wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu usulu fi ajaabiha taxuri ci tagg yi la bokk walan tara min waliyin xayra muntarid bihi wala min aduwin xayri xayra mustajiri ka annahu wa huwa fardu bin jalalati fi askarin xiina talqaahu wa fi sumari wal mustafa al muntaqa al muxtaaru waasiti wa rufqati dahri ahlil xayri wal xabari yonent bi mooy al mustafa mooy al muntaqa mooy al muxtaar yëpp rek mooy ki yàlla tànn kon xasida gu fees dell la ak tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di julli ci yonent bi ci biir xasida gi salla alayhi bi taslimin muqaddimihi fi bil aali wa sahbi man yasko bihim umuri salla alayhi bi taslimin bi shiatihi man kawnuhu lii agnaani ani sumari wa salli anni bi taslimin ala ala sanadi wasirati man bi matti ci wasalaati xar yi indi na ko ñaari yoon kon xasida gi tamit tàgg na ci yonent bi waaye julli na ci ci yonent bi sallallahu alayhi waaye sëñ bi am na nag um ci leeral nee na képp koo ma wax ne yow de da ci biir nasaraan yi la ma lay tontu mooy yàlla mi alxasib doy na ma te yàlla kat moo méngoo sama mbir sama mucc ci moom képp rek dong la ne te man dañ toll naa ci ragal samay noon yonent bi al Mustafa di al Muntaxa al Muxtaar mooy sama wasila ma nga naan képp koo xam da ngaa ne man damaa laxas jëm ci feneen ku dul yàlla ci yoonu géej gii wala ma laxas jëm ci keneen ku dul yonent bi di al Mustafa al Muxtaar yàlla na yàlla julli ci moom ku jàpp loolee ba bay léew teg moom ci jaas yi wala ci al almadaafi ci ay kanu boole nga ëmb ak mbañeel ak wor képp ku jot loolu fallaahu yaxduluhu yàlla da koy gàccaal nit ñi dañ lay wàcce gàcca gu ànd ak nax-nax ak kersa da lay rey te man kat wallaahu yanturu nii wal xalqu tatlu nii te du tee nag nit ñi di ma topp waxtu wane ne jamono ju ne saa yàlla di ma dimbale waxtu wu ne ne ci jéeri jéeg ci géej ci géej gi may saa naf in bilaadarin may borom njariñ bu antoog lor kon xasiida gi dafa fees dell ci li ñuy wax al e, ci wàllu balaaxa ak arudat lépp sëñ bi indi na ci li ñuy wax tastiir ci ay bayit yoo xam ne ci burda la nekk xasida bu seyri moomu nga xam ne mooy abou abdullahi mouhamad ibnu sahid ibnu amat assanhayi gis nga wa huwa alxabibu allati turja safaatuhu loolu ci xasida burda la de burdatu la nekk sëñ bi da ko def tastiir indi xab bu njëkk bi xab bu njëkk bi sëñ bi indil ko boppam bayru mooy huwa alxabibu allati turja safaatuhu li kulli hawnin min al ahwali muxtaxibi bu dafu xasida gu am solo la xasida gu am maanaa la bu sëyru dafa am feebar paralysie bu ko daroon mu defar xasida gi ngir def tawasul ci yonte bi ngir wér yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko ci gént raay wetam kooku mu wér xasida gi boroom xam-xam yi téwoon nañ ko lool sihaabu diin alxastalaani yi saraa na ko jalaalu diin yi noonu ibrahima bajur noonu ak boroom xam-xam yu bari sëñ bi nag jël bayit bu njëkk wi ne wa huwa alxabibu lahi turja safaatuhu sëñ bi nag yokk ci bihi tawasaltu fii laylin wa fii saxaari kon tafsir la def fii wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu asudu fi ajaamiha bu sori taj mi la wax sëñ moom def ko taxawri ngir ra'aye gi xasida gi nekk walan tara min waliyin xayri muntasirin bihi wala min aduwin xayra munqasimi loolu la bu sori def sëñ bi ñëw ne walan tara min waliyin xayra muntasirin bihi wala min aduwin xayra xayra xayra mustajiri ka annahu wa huwa fardun min jalalatihi fii askarin hina talqaahu fii asami sëñ bi ñëw def ko tafsir ka annahu wa huwa fardun min jalalatihi fii askarin hina talqaahu wa fii sumari kon xasida gi dafa rafet ci tafsir googu yi sëñ bi indil ci sëñ bi rafet xasida gi rafet lool ci wàllu jinaasa gi ci nekk jinaasu xayru taam ñëw na ci ci yaasal bu saaraati bil aaya wa suwari li yasxat bi kaw nii abdal muhsin suwari mutaabaxa am na ci sëñ bi di tudd muksi ak safari di indi al usru ak yusru al badu ak al adar tudd guddi gi tudd waxtu njëw njël waaye xasiir gi nag ci wàllu was da ci am solo lool sëñ bi da ciy def wasf daqiq bu yéeme ci noonam yi surtout tubaab yi ma nga naan mu ngi ñaan suñu borom tàggatal ko kulla si jaxdin aussi daja te mooy tubaab yi ñu nga xam ne daal dañuy dingat te dañoo dañoo xat ñu xat bakkan lañ doon al joxdu nag mooy al inkaar ma al ilmi xam nañ dëgg ba noppi bañ dëgg gi warul lii kulla si batari gis nga ni muy melalee àndal mooy ñi nga xam ne ngan ngan lu di rëy al kibru wa taali ani naas moo melal leen ñoom mooy ahlul kufri wal xiyari ñooy ñi wedd yàlla ñooy ñi gëlëm wa sax li asar nag ma tàggatal yi nga xam ne dañoo ngan ngan di rëy rëylu ci kaw nit ñi ñi ngi melal noonu ni ñoom kat kenn ku nekk ñoom tubaab yi sa xol moo gën a wow doj mi ngi melal tubaab bi ne ñoom dawit tanaasu lañ ñoom dañuy xëccoo di bijoo seen biir waaye dañuy wax ne yàlla ñett la ñoom ñooy borom perte yi ma mel tubaab bi ci biir xasida gi de inda nasaara sawil asiyaafi wa sumari gattaayu waxtu moo tax may taxañ lu bari yaa man kafaani dawil inkaari wa saxari nga xam ne ñoom ñëpp mi ngi leen mel ne ñoom daa xiq danañ wasaa kon gis nga ni mu melal melalee tubaab bi fii ci biir xasida gi melal wu yéeme waaye sëñ bi nag mi ngi kiy tudd nag ay xéewal yi ko sun defal mu ci sant yow yàlla génnee nga ma ci sama noon yi mboolem seen ci barkeb ahlu badrin hmm. yow yàlla musul nga ma min buusa o min xatarin xat xuttani birida li saalin ma asam xasamtani rabbi min buusa o min xatarin li yastajab bi maa faqa zunooni bii yàlla wuyu nga ma ci loo xam ne kawe na njort jaxanta xal bi def nga sama xol bi muy sarfal aaya wa suyar ndab bi alquran man raama hadma jana janaabi an hida sama nii saraftoo xam bil muxsin hidaal mudari kon yooyu yëpp da koy wax ci anamog sant suñu borom waaye ci biir xasida nag sëñ bi def ci enseignement bu am solo ña mbooleem njàngaleem yëpp sëñ Tuubaa dëxëñ ko ci benn bayit waaye jaaree ko ci taxabire ko ci formule ñaan waaye jàngaleem sëñ Tuubaa yëpp mi ngi ci bayit woowu waktub kamaliya fi ilmin wa fi amalin wa fi adabi wa fi taaddubi bi ne ma safari yàlla da nga ma am xam-xam bu mat ak jëfe gu mat ak teggin yu mat njàngale Sëriñ Tuubaa yëpp mooy alxilmu naafix wal amalu saalix wal mat mardi kon mu taabir ko fii nag ci wàllu ñaan waaye Sëriñ Tuubaa li woote mooy xam-xam jëfe xam-xam teggin waaye sëñ bi mi ngi ñaan ci biir xasida Yaatal Madaarij na dellusiwaat nag ci tukkeem bii dellusiwaat Touba ak Daaru Salaam daa aw bin bi safare moo tax daaru salaam ak tubaa sëñ bi tudd na ko ci biir xasida gi moom itam lahoo sukkooriya fii daari salaam yi wa fii tubaa bi dikrin aqimin xad na faa darar yi ku ñëw ci mbaar mii fan yii buntu ko sëñ lu gis lañ fay wàcc ci alxuraan di ko santalee sëriñ Tuubaa suñ borom da nga xam ne kon li moo kon suñ borom def na ko su màggalu daal fa ñëwee nga gis kaamil dañ fay jàng nga xam ne kon lahoo sukkorie fii daari salaam yoo fii tubaa bi dikkan hakimin xam na faa dara di moom itam lu jëmm la waaye mu di ko tuddaat ci biir xasiide gi ñaari dëkk yooyu mu tudd muy Touba ak Daaru Salaam mu waxee ko waxin bu am solo nee na wa xuttali minka man xaada lahu sulaa wa xuttali laka min tuubaa maxa suwari kon gis nga ni mu ko ci indee makkantani fii duyóori yaa ilaahi bila kaddin wali kunta fii tuubaa bila darari xad kuntali fii duyóori yaa ilaahi maa xasamtani min ismaani wal xarari kon xasida gi mi ngi noonu xasiida ak yaatal bu saaraat yi xasiida la gu fees dell ak wéetal suñu boroom ak ñaan ak wane ubóor yi toom bi kañ ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan suñu borom wakkilu ci suñu doyloo ko yaakaar ko euh, ba noppi nag ànd ak di ko jaan ak di ko delloo njakkal ñukkal ak di ko sant kon xasiida ak yaatal bu saaraat noonu ci xasida yi weeru koor yi la sëñ bi defar ko ngir tàggatoo ak weeru koor wi waaye muy xasida gu rafet ci wàllu arab gis nga tastir bi ci sëñ bi indi jinaasatu xayru taam musaabaxa bi ci am ak ni mu rafetee am na ci loolu gàttaay waxtu moo tax mënuñu ca àgg ndax la ñuy ci waxtu dafa mel ni sax ëppal nañ ko kon noo ngi doog ngànt di jégglu di ñaan yàlla nangul ko lépp luñ fi wax yàlla na ko suñu borom nangu te defal ñu ko ngërëmal sëñ Tuubaa ñoo ngi dog gant di jéggalu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu eh, jërëjëf sëriñ Basiro ci waxtaan waa solo wi te matale eh, ñoo lay santaat baax di eh, rafetlu jotaay bi ak ni ko tërale tomb yu am solo yi nga xam ne tudd na ko euh, xam naa ci fàttali rek comme ni mu ko waxee woon rek wax nañu xasida gi fi ko sëriñ bi taalifee tu mooy ci tukki bi dem na yi mu nekk euh, mu taalif ko ci ñetteelu atam ci ñetteelu kooram ñetteelu koor gi am ci tukki bi wax ne tamit jamono yi mu koy taalif koor googu ngi weer wi mi ngi feeñoon ci bisub altine mu taalif xasid ak yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi bi koor gi di jeex tombeek bisub talaata mu tëjee ko mu taalifaat xasid ak yaasal bushaaraati bil ayaati wa suwari tëjee ko koor googu ngir wane ne ganam gu màgg gu tedd mi ngi tàggoo ànd ak koor gu metti nga gam ko woor nga xam ne ni mu ko waxee ne jiru koor gi yëpp lu ñuy togg sëriñ bi mosu ko fa ca eh, ci tukki bi ci koor googu lu dul ne danaan dundal sunna si ne bu koor bu dog jotee mu fexe ba jël ay xob tucc tuccal ko ba dara jàll ci eh, ak buleem wane ne dog na ngir loolu tamit day ci wane dundal sunna ak bi sallallahu alayhi wa ak fonkam jàngaleem ngir ne xam nañ ne li ñu tuddee wisaal moom loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak la bokk mooy woor bañ a dog bu dog jotee ku wooroon boo bëggee tuyaaba ja gën bari ak loo bëgg-bëgg lu baax euh, lañ santaane mooy nga nga dog moom xam nañ ne daanaka amoon na ngànt waaye teewut bëggam sunna ak ak njàngaleem ak liggéeyal gi mu daan liggéeyal yonent bi sallallahu wa sallam te daawul nangu dara gàllankoor ko moo tax lu metti metti rek dana fexe ba sàmmante ak sunna sa sàmmante ak la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale muy koor gu metti euh, sëriñ bi tamit sëriñ Basiir Touré ñëw na ci biir xasida gi ci lim làmboo euh, muy tawxiid daa mel ni sax gi daanaka mën a mën na ko tuddeew xasida ak tawxiid ngir ne lim ci wax ci euh, lu laaju ci tawxiid ak sant yàlla ak Euh, tudd melokaanu suñu borom yi rawatina ci tawxid uluhiya ak tawxidu rububiya daanaka moo ma fees dal xasida gi yeneen yi nga xam ne dañ ko tudd tamit boo xool tamit yëpp day delluwaat ci tawxid wéetal yàlla gi mooy sant yàlla gi loolu lépp tawxid tawxidu sëriñ bi lay wane ak tuubal yàlla gi muy tuubal yàlla euh, ci baat yi mu koy waxee wàcce boppam euh, yooyu yëpp day wane tawxiid ak wet wàkkilu gum wàkkiloon ci yàlla delloogum daan dellu ci moom te lool moo ko may eh, ndamam yi nga xam ne moom la am ba eh, di sant di santaat ba sant boromam ci defal gi mu ko defal ndam ci kaw noonam yooyu nga xam ne ñoo ko jële woon fii yóbbu ko eh, ci barab boobu ak coona yam fa daj ak la li ko suñu borom fayee ci ay may ci ay ba tax muy sant borom ci bis bii nga xam ne moom lay moom lay wootee Serigne Bassirou Touré tamit xam ne ne euh, li mu wax ci taw yi tamit wax ne ne xasida yi nga xam ne moom lay Serigne bi taalif ci géej gi euh, te yaasal bu saaraat gi nga xam ne moom la doon jàngat wax ne ne tamit euh, li muy Serigne bi taw gi muy jàngale ci biir ci biir géej gi ginnaaw wuute nag tawxiid yi nga xam ne moom la jàngale ci ginnaaw ginnaaw ginnaaw ginnaaw géej gi loolu tamit day mel ni dajee junju tawxiid yi nga xam ne eh, moom mooy tawxiidu takallum comme ni ko sëriñ bi waxee ci masaalik ak tawxiidu taaruf te mooy lu ñu tuddee tawxiid mooy ilmul kalaam ak yi nga xam ne mooy lu ñu tuddee tawxiidul irfaan yi te mooy dëgg-dëgg tasawuf ndax dëgg-dëgg tasawuf mooy mooy mooy lu ñu tuddee tawxiidul irfaan yi mooy wéetal yàlla gu ma sëkk bu sellal yàlla ci lépp eh, loo xam ne yellut ci moom ñëw na tamit ci xasida gi tamit làmboo gim làmboo ay ñaan ak bayit yi nga xam ne moo koy firndeel ci biir xasida gi euh, sëriñ bi di ci di ci ñaan borom tolloo lépp tamit day delluwaat ci tawxiid ji nga xam ne moom la ñu waxoon ne daanaka xasida gi tawxiid ji moo ci moo ci moo ci gën a am doole euh, ñëwaat na tamit ci xam naa wax xataa xataayu waxtu wi moo tax yooyu yëpp da koo tënk waaye andi na ci lu am solo loo xam ne lu ñu mën a jariñoo la ak tagg gi nga xam ne moom la ci sëriñ bi doon tagg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ci ak li nga xam ne moom loo ko ànd ci ay ay bayt yi xam ne moo koy moo koy firndeel naka noonu tamit jullu ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam tamit ñëw na ci biir xasida gi xam nañ ne xasida moom bindam yëpp ci tagg yonante bi ak sallallahu alayhi wa sallam ak jullu ci moom euh, moom moo moo bokk na ci liggéeyam yi gën a ràññiku yi nga xam ne moom la moom la moom la doon defal de bi sallallahu alayhi wa boo xam ne at mi da koy xaaj juróom benn weer yi day tagg ci da koy tagg juróom benn weer yi mu koy mu ci moom euh, comme ni ko ni mu ko waxee ci yeneen bërëb ci ci ay mbindam ñëw na tamit mu jeexale ko ci ci xasida gi ràññi ko gum ràññi ci wàllu balaaxa li ci feeñ ci ay mu xasanaat badiya euh, ci ak lafziya ak maanawiya loolu lépp sëriñ bi ñëw na ci ak yi ci ñëw ci tastir ak niroole gi mu niroole yenn ba waxi eh, imaam Busiri yi rahmatullahi alayhi ak yi nga xam ne moom loo ko sëriñ bi jël ci ay ay bëyitam eh, mottilee ko yeneen yeneen baat loolu tamit jëkk gum jëkk woon na waxoon ci ne nuzi ali nuuru lisaanul arabi dëggal na ko ci xasida gi ak ci yeneen mbindam yi nga xam ne moom lañ moom la ñu xam euh, muy xasida gu am solo goo xam ne tamit fonk feeñ na ci tamit fonk bu sëriñ bi euh, radiallahu anhu wa qaadalahu la euh, fonkum fonkoon barabam bii di Touba ak Daaru Salaam nga xam ne daanaka xasida yu bari rawatina yi ci géej gi néewaana xasida goo ci jàngat doo gis tudd mu tudd leen xam ne daanaka ci jeexantal bi Euh, tudd na ci daaru salaam ak Touba doo sukkooree fi daaru salaam wa fi Touba yaqat naxwa darar yi loolu tamit nga xam ne tamit cant gi nga xam ne moom la woote tamit feeñ na ci biir xasida gi nga xam ne day wane ne ñaan suñu borom delloo delloo ko ci barabam bii ba ba muy mën a ba mën a santaat ci barabam bi ci suufam si loolu ràññikaloo na lool ci xasida gi te Serigne Bassirou Touré tudd na ko ak tomb yu am solo yi nga xam ne moom la ko jeexale euh, xam naa di ko sant la santaat baax di ñaanal suñu borom yokk ak wéram yokk xam-xam bi euh, ba mu gën a mën a liggéeyal sëriñ bi ci xasida ndax mi ngi def ay liggéey am solo euh, di ay secret yoo xam ne ñu ngi koy taalibe ñu ngi koy jëriñoo di ko di ko dund. muy koo xam ne ku disponible la di ko sant ci jàpp jàppandal gi mu jàppandal ñëw ànd ak ñun jotaay bii. andi fi xam-xam bu solo bii nga xam ne moom la fi moom la fi andi xam naa tey jii moo nekkoon ñaareelu jotaay bii bi nga xam ne moom la neen daayira Muqaddamatul Xidma tànnaloon suba mooy jotaay bu mag bi nga xam ne moom lañ moom séq ak waa comité d'organisation màggal bi mooy mbooloo mi nga xam ne ñooy taxawu màggalu baax at mu jot day tànn benn tomb boo xam ne ci tomb yi nga xam ne moom lañuy waajale màggal gi seq ko ak comité bi euh, Cheikh Mahamadul Bachir na Cheikh Abdoul Qadir di ko jiite jiite comité boobu dana ci teew ak ak mbooloo mi ak ak kilifa yi nga xam ne ñoo naan ko liggéey bi yëpp euh, ñu ci woo ñëpp suba ci tàkkusaan incha allah ñu koy defee baas bi nekk ci buntu kër Serigne Fallou euh, di ci séntu ñëpp di Serigne Fallou bu soo Xasan war koo def ñuy waxtaanee murid gi ginnaaw bi fi Serigne bi jógee ba am téeméeraat murit gi murit murit gi nga xam ne moom mooy wooteeb sëriñ bi ginnaaw bi sëriñ bi jógee ba am téeméer at xam nañ ne ren ji mooy téeméer at ginnaaw bi fii eh, ku baax ki jógee ñu andi ko fii ci barab bi lool loola sëriñ Fallou Moussa Assane di ñu koy waxtaane ginnaaw tàkkusaan allah di sant baat bu baax eh, télé télé bii nga xam ne moo ko doon jàllale di MK TV Moukhaddamatoul Khidma TV eh, ak pass nga ne mooy page Facebook bi ci grand Mosquée Touba yëpp doon na fi jàll ak plateforme yi nga xam ne moom ñoo doon jàllale waxtaan wi yëpp euh, ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di di leen jéggulu di leen joxaat dig daje comme nañ ko waxee suba incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.